ah arbitre baa ngi sifflé diggante Serigne Ndiaye ak eh, eh. Pakala dem na Pakala moo njëkk a Ngel John ñàkk na Pakala mbër moom expérience la. Pakala pour le mbër moom expérience la. wallaahi le retour de Pakala waaw il est super concentré. ku jàpp ni la da sa bopp. boo xoolee yi gars yi def yëpp bokk ci. bokk ci day taxaw. waaye mu xaar fële. ci diggante Serigne Ndiaye ak Obali. walaay dëgg la. moom ci nu xale géew bi. waaye. waaye tey final bi dina neex. ndeysaan daanaka la Obali ak ki nga xamante ni moo di Serigne Ndiaye. ku ci am final bu neex lay doon. loolee ndeysaan ñaari xale yaa ngi lewatoo diggante Obali ak ki nga xamante ne mooy Serigne Ndiaye ndeysaan da ngay bëre Obali Serigne Ndiaye ñoom ñaar ñëpp a def exploit si final Obali daan généralu Malika Serigne Ndiaye daan Sélémélé gis nga boo xoolee ñaari lambi lamb ji la Serigne Ndiaye gën a jox cër waaw ah Serigne ah Serigne ah ah ah. génn de ndaanaan la xam ne comment mettre lay doon. déggoo li ma la wax ndaanaan la waaye jum na. افرن عشرة واو عشرة مالون جزجا جزجا جزجا سرنجا دان اوبلي لمنا فنال نانا قاعدة مام خل نانا قاعدة مام خل بركات لا نانا مام خل نانا فريخي